gis ngeen ko waaw en direct ñu ki nga xamante ne ci son temps tv gis ngeen ko onze personnes décédées pour le moment waaw fi dah nga xamante ne moom mooy ci géej wakaam dafa faatu mu ngoo ko direct la nii ñii nii espagne lañ doon dem kii dafa dee yéen a ngi en direct sometime tv en direct waaw ndeysaan dafa faatu ci biir géej bi Espagne la jóge gaal bi lu mu toll nii onze personnes de nañu waaw gaal gaa ngee gis ngeen gaal bi moo nekk noonu gaal bi moo këpp ñenn ñi dee nee nañ mot nañ lu mot soixante personnes mais gis ngeen la police et la gendarmerie ñoo nekk noonu gis ngeen leen police ak gendarmerie gis ngeen dese baa gis ngeen leen ñii ay moolan yoo xamante dañ bëgg a dem jàppale li nga xamante ne mooy sapeur pompier mool yi la dañ bëgg a dem def secours parce que peut être ñoom min nañ géej bi euh, mën na am ñoom ñu gën a min géej bi que les sapeurs pompiers mais pour l' instant y' a 14 morts ici à Wakam waaw on a 14 morts c' est Barça au Barça gis ngeen gaal gaa ngoog gaal gi mu ngoog nga vraiment euh, instant yi daal pour dégg-dëgg Euh, si côté média Jama TV moo fi ne euh, RFM consort quoi dañu gis affaire bi ni muy demee noonu